فيهل وأصحاب قذف قتال ولهم نصره دون قتال وبهذا نصول فضل مبين شمال ترم بنا لإمام من ذلك أتى من قبل فرق لقد قيل خلق بقبالي دمروا ما قلبي تلك ليالي وعليكم من كل خلق ظلام ذهب خلق إلهي طول ليالي فلا علي وسلام الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahaabatihi wa sallama tasliman kasiran ila yawmi ddin gannaaw sant yàlla julli si yonent bi wa sallam ñu ngi nuyu mbooleem ñu fi teew kenn ku nekk si turam ak santam di nuyu mbooleem sit yi nga xam ne ñu fi muy sunu Sunugal TV Sunugal 24 Sene Info ak ban génération hmm? génération Barhama ñu ngi nuyu daayira Kutaal bi nga xam ne si nañ léegi ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi fi teew ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ndokkeel it si weer bu ga weer gàmmu gi nga xam ne weer bu màgg la ci yàlla te weer bu màgg la it si mbooleem mbindee fi yàlla yi ndax si lañu yàlla jox ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi xam ne lépp lu yàlla amal rek mu ngi ko amalee si barkeem te yàlla dimbale ñun ñëpp ñi dajee Madina fii di ko fi defee moo tax ñu ngi siy gërëm ñëpp ñu ngi siy nuyu ñëpp ñu ngi siy sant ñëpp it waajal gàmm gi moom moom waxtu bu nekk nañ ko doon defee rek dañ koy yokk daay man rek waaye du wàññeeku ndax bàyyi itteem yëpp. def koo def rek ci mbëggeel si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Baay def ne safaaliya waxti bil madinati lam yarid ala xaatiri aw saamici gayru mustafa mu ne walam taatini l axbaaru min gayri ahmadin wala muxbirun indi siwa waxtoom yépp def ko si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne amul benn xibaar boo xam ne dana ko dikkal wala buggul ko sax lu mooy li nga xam ne si yoon bi sallallahu alayhi wa sallam la dikkee ndax yonent wi sallallahu alayhi wa sallam bam ñëwee si la yàlla jëlee ñëpp ci lëndam jëmee leen ci leer ndax bu fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne allahu mooti wa ana alqaasim yàlla mooy joxe waaye man may seddale kon war na kon juddóog yonent wi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñi màggal ko ndax kenn ku nekk yaa ngi am say bisi bopp yoo xam ne yaa ngi koy màggal moo xam say bisi maam wala say bisi baay te ñoom ñëpp yonent bi sallallahu alayhi moo tax yàlla amal leen kon war na ñun tamit ñi màggal juddog yonent bi sallallahu alayhi moo tax baay di wax si benn kasetam mu ne am na boroom xam-xam yu ne màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bidaa bu rafet la waaye mu ne man dey waxuma loolu mu ne man damay wax ne sunna la te jële naa ko si aaya alquran bu weer bi yàlla di wax ne kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nusabbitu bihi fuadak mu ne yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi ne ko danaa la nettalil xibaar yonent yi la jiitu woon ngir nga dëgëral sa xol si gëm yàlla waaye moo tax bàyyi bëgg gi nga xam ne bëggoon na ko yontuwi bi sallallahu alayhi moo tax bu weer bi jublu see ngay gis lisaanu xaal yëpp naan hani an li ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalul badaali naazirina jamaaluhu nga gis ne ñëpp ñu ngi ndokkeel baay ci weeram bi waaye loolu dëgg-dëgg dafay dëggal ne amul ku ko féetee kaw si mbëggeel si yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ndax moom moo ne aliqtu bihi wannaasu fi sinati lkara te mattaatu minhu dahra is kuntu mufrada wa zuximtu fi hada zamani wa innani la fi giratin mimman yaru muhammada mu ne ba nga xamee ne maa ngi aju si yonent bi sallallahu alayhi di ko bëgg man kenn rek maa fa nekkoon waaye tey dem na ba jamono ñëw ku nekk rek bëgg di xëccoog man mbëggeel gi bàyyi mu ne maa ngi fiir ci loolu waaye nga dégg mu dem ba mu yàlla mu ne ba mu yàgg mu ne jëllaytu qabla sibaqihim mu ne waaye man sax jaratul may fiir ndax fañ jëm ñoom man àgg naa fa bu yàgg toog ndax comme li mu wax rek ne amul kenn koo xam ne mën na koo jot ci bëggeel si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa man raama darkii fi tiyaaqi nabiyina kaman raama amran mustahalan muharrama mu ne képp koo xam ne yaa ngi sàkku ngir ñëw ngir jéem a yemoo moom si mbëggeel gi mu ne yaa ngi sakku loo xam ne mustahil la wala yaa ngi sàkku loo xam ne lu xaram la mu wax fa man lii bi ilmaamin bi taybata bin naqa maqarri rasulin jaa axiran muqaddama mu ne lan moo tax munumaa takkoo sax ngir sax si place yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moo dikk di mujjanteel yonentu yi waaye mujj na it di nekk seen njiit ñoom ñëpp nga gis ne moom itteem yëpp si loolu la ko def ndax daan na toog ba guddi di comme ni mu ko waxee si bayteem boobu naan abal qalbu illa an yakuna mutayyama xalifa garamin binnabiyi muhayyama mu ne abitu bi leylin timmi sahraana munsidan li zikri lladi qad taaba badan wa maxtama da ngay gis ne koo xam ne guddee ngi jot ñëpp di nelaw waaye yow yaa ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis dem nga sax bay waylanteeg pittax yi pittax di yuuxu seen yuuxu waaye yow yaa ngi wat way yonent bi sallallahu alayhi mu ne moom bu demoon sax ba mënatul a tagg yoontu dana ut kayit bu weex rek taggal ko ngir ñi wanee na ngir mu ngi tagg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam te duur de daf koo wax nii rek waaye bàyyi mbëggeel googu daf koo jëfee ndax tey lu tax addina yëpp ñu ngi ñëw ngir ji gàmmoo si madina lu ko waral ndax bu duwoon ne ay naxaate la loolu moom kon bu nit ñi ñëwee benn ñoo rek dootu ñëwati ndax euh, damay dégg si imam Cheikh Tidiane Ali Cissé muy wax mu ne mën ngaa nax kenn nit waaye nax ñaari ba ñetti nit moom loolu moom mënut ta nekk moo tax mu ne raaytu rasulallahi nassa bi annani safirun lahu fi lkaayinaati almuxassasu mu ne gis naa yonent bi salaai sallam mu wéralal ma ne man maay ambassadeur am si mbooleem mbindeef yi yëpp kon nga xam ne lim nekkee ambassadeur yonent bi salaai sallam ci mbooleem mbindeef yi waaye nga gis ne tagg yu muy tagg yonentu dem na di xaar kado boo xam ne yonent bi salaai sallam jox ko ko yonent ne ko lan mu wax bàyyi ne lan waqad qaala moom doxi inni mu fawidun umuri ila barahama fa huwa munaffisu dem na ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne suma mbir naa ko barahama comme rek sa kayit kon loolu war na ñi ànd ak moom ci màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne lépp lu yàlla amal muy yow jaam bi muy sa dund gi muy tey lépp looy gis rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yàlla amal ko kon bu fekkee ne loolu kon bis boobu war na mbooleem jullit ñëpp ñu màggal bis boobu ndax màggal yonent bi sallallahu alayhi mooy màggal yàlla rek bu la fekkoon ci jàqare jàqare googu yàlla mën na koo dindi bu la fekkoon ci feebar it feebar boobu yàlla mën na koo dindi ndax bàyyi sax lu feebar feebar bu euh, mawlid jegewaan day wax euh, day wax feebaram ne ko na nga bu la yeboo na nga dem ndax na nga xam ne suma ma jege si na mooy lan mooy euh, bëgg gi nga xam ne moom la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mësta kook moom si benn jamono ndax comme li muy wax rek ne dem na ba gaana sax bi gaanata wal axyaaru qudum walam yazal fuaadi bi turbil haashimi muxayima dem na ba gaana waa gaana yi ña ngay nelaw ñoom bay yandoor waaye moom xolam mu ngi samp rek ci suuf ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax tey màggal gi ñuy màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëriñ li ñun rek la ñeel ndax bisa ak yonentu loo si def te yàlla wax na si alquran ne man jaa bil xasanati falaw ashru amsaliha wa man jaa bi sayyiati fala yujza illa misaha ku def benn bu baax rek yàlla fay la fukk bu fekkee ne yàlla lu mu bind yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam la si gën a bëgg kon ñun buñ màggalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek màggal nañ yàlla si boppam moo tax waaj gi moom comme ni nga ko laajee rek waaj gi moom lu dara lu mooy ngir gën a yokk sin itte rek si mbëggeel ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak gën a yokk sin itte si liggéey yonent bi sallallahu alayhi ndax loolu rek mooy li nga xam ne moom moo ñuy jëriñ ñun ñëpp si yal yàlla euh, dimbale ñu si loolu ñun ñëpp si barke yonent bi sallallahu waaw di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi si yoon yàlla indi leen si jàmm ñu fekk ñëpp si jàmm ñëppi dëlluwaat ci jàmm euh, euh, fekkaat ñëpp si jàmm kom li borom xam-xam bi waxoon rek ba mu demee ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa in qila zurtum yaa akramal xalqi ma aqul mu ne ko mu dégg baat bu jugee si xabru yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko qulu rajaana bi kulli xayrin ndax waa ji dafa ziyaara yonent bi sallallahu alayhi wa bay dem mu ne yow yonontu ziyaare nañ la ñu ngi dem léegi bu ñu demee ran la ñuy wax mu dégg baat bu jugee si xabru yonent mu ne ko wax leen ne dellu nañ ànd ak bépp yow moo tax ñu ngi euh, dénk ñëpp euh, nga xam ne amu sikki dëkk bii di madina sara laha sirul madinati nabi comme ni ko Baye waxee nga xam ne moo royaat di mboot ak euh, madinatul munawara kon ku fi ñëw na nga xam ne da nga fee ñëw euh, ngir ay soxla wala da nga fee ñëw ngir defaru wala da fay ñëw ngir bu fekkoon ne euh, yaa ngi bon sax nga mën fee baaxee bu fekkee ne xamoo sax nga jéem fee xamee ndax tant bi ku fa toog lépp luy xam-xam rek da nga ko fa dégg ñu ngi koy dégg seen bopp te di ko dénk ñëpp it ndax amul sikki ne Madina moom képp ku fi dikk rek da nga jëriñu loolu moom amul sax demal ma ñëw ndax bàyyi dem na ba nekk si aj sax di wax naan la béyka talbiyata min waasilin arafa min kawlaxa muntaha dunia ila arafa mu ne dem na bay wax eh, ca màkka di wax labbayka allahuma labbayka mu ne waaye maa ngi jugee ca kawlax fi nga xam ne foofu mooy pegg àddina fi nga xam ne foofu la addina yam tukki na daabulaa sax gis ne wi daabulaa xalintu taamal maakali wa xurimta nawma inda manzili wa qultu ya rahimu ya karimu ya barru ya latifu tarjeni ila madinati saliman markazi sirril xatmi du maganima nga gis ne tukki na tukki mi métti mu xiif amul lu lekk mënta nelaw muy oo yàlla si turam yooyu naan ko yàlla nag ma delloo ji madina gi nga xam ne mooy saxwaayu mbooti Cheikh Tidiane mu ñaanal madina na dem naan rabbi aya rabbi fala tazaraha xaawiyatun wal tuksiranna xayraha aalimuhum yudarrisul uluma fi kulli saatin yuril fuhuma muy ñaanal madina ne yow yàlla yàlla boo bàyyi madina muy wéet mukk mu ne yow yàlla nga def Madina seen borom xam-xam yi di jàngale seen xam-xam yi mu ne te ci bépp jamono rek nit ñi di gën a gis dégg-dégg yi te amul sikki ne wa maratan uxra taraw na ajaban min faydisal xatmi imaamin nujaba bis bu set rek maratan uxra googu mu ngi feeñ moo tax ñu ngi ñaan yàlla it képp ku fi ñëw rek yàlla nga delloog njëriñ yàlla nga delloog yiiw yàlla nga dellook mbaax yàlla nga delloog barke te bu fekkee nga indi feebar sax jàngoro googu yàlla na fi saafara woo ba penc bi bu fekkee nga indi fi haajo yal na yàlla jaare faj haajo yooyu bu fekkee nit indi fi jàqare yal na yàlla dindi njàqare googu si barke eh, Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nga xam ne mooy buntak eh, yonent bi sallallahu alayhi te mooy buntak Cheikh Tiyaan waaye ñu ngi jottaliku si barke boobu di ñaan yàlla mu defal ñu loolu ñun ñëpp si barke Baay si barke Cheikh Tiyaan si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim